ak suñu correspondant euh, lay doon Babacar Diouf Babacar euh, di la euh, nuyu di nuyu également ñëpp ñu yeewoo Bambey ak wetu Diourbel tey nag nga ñuy wax fan la tuuru Bambey jógee Babacar. Bambey nekk dëkku cosaan dëkku cosaan boo xam ne ni nag war na ñu gëstu tur bi fan la jógee. Abi Abi foo dëkk. man lew na turu Bambey. ah man na wax dëgg ñëw rek sëy si xamul lu ko indi. bi nga sëysee laajtoo lu indi bambé. déedéet laajte bi mënu ko indi. wax sa doom ah xanaa moom dina ma tane parce que moom jàng na. li hmm. mhm, man moom jàngu ma. <laughs> loolu du jàng de. Eh? loolu di dégg la moom waaye sama jëkkër moom day jàng ak xale yi. xam ko. <laughs> xamoo indi turu bambay. ah xaw ma ko de. <laughs> indi turu ma ko. Hmm. bambay. ah tur moom xaw ma ko moom. xamoo déedéet xanaa fi. ah fi at dëkk nag. mais xamoo luy Bambey. nga xaw ba léegi luy Bambey nag. doo ko gëstu la. naa gëstu xam naa fay dinaa laaj mag ñi. loolu nañ ko gisee ci reportage bi fu nekk jaar nañ fa mais ñi nga xam ne ñoom lañ dajal ku ci nekk laaj nañ ko lu Bambey di wund mais dafa mel ni ñu ci bëri xamuñu fan la Bambey jóge ak lan lay signifier pour loolu nag dañuy dem xooli magum kilifa boo xam ne nii mu ngi fi mu di maam Samb maam Samb moo ñu nar a waxtaanal lan mooy cosaanu Bambey tur bi fan la jóge ak lan lay wund góor gi tey waa TFM dañ la seet si woon di la laaj ci turu Bambey fu mu jóge ah, jërëjëf euh, Babacar Bambey nag am na ku ma wax ne ma turu Bambey am commerçant yi fi nekkan ca bu njëkk daan def commerce euh, commerce boobu yu naan def nag ba ñu demee ba développé nga xam ne mbéy mi da Bambey dëkku béykat la ñi fi neen di ay béykat daan def itam la nga xam ne lii moo leen war ci seenam liggéey euh, léegi nag bi ñu demee ba développé commerçant bi dugg euh, ñu ne léegi daal banan mbéy man banaa mbéy ba Bambey ñu ne ne loolu turu Bambey loolu moo ko indi caabi daal euh, moom lañ xam ci tur bu njëkk bi nga xam ne mooy euh, turu indi Bambey gii. waaw leer na caap yi la tuddoon tey ñu wooye ko Bambey li war nag góor gi wax na ko nit ñi dañoo demoon ba sonn ci mbéy sonn ci mbéy commerce bi dox ñu ci bëri ne bàyyi nañu mbéy fi ñu bàyyee mbéy du fenn fu dul fii di Bambey ñu leen doon amal seen émission lii di dëkkuwaay quoi est-il di leen jox dig daje beneen yoon ci beneen. di la remercier bu baax a baax euh, Babacar Diouf correspondant groupe Futur Média foofee ca ca Bambey alors Malick Bambey de moom. Euh, tur bi comme ne woon wuy wuy wuy na ah, na mu amee dayoo ak euh, euh, voilà. yi waaw dëkk bu am taarix la. Mhm. ndax xam nga ni euh, moom Bambey dafa bokkoon ci royaume di Bawol. Mhm. nekk yi tamit dëkk bu nga xamante ni nii séeréer yi ñoom ñoo fa njëkk a dëkk. Mhm. moo tax boo déggee sax Bawol Bawol yi ci bari yi dëkk Bambey bu ñuy wax même bu ñu làkkul séeréer dañuy am accent séeréer. mais mu nekk terre bu nga xamante ni bay lañu xam ak sàmm. mais aussi ay liggéeykat lañu ay jàmbaar lañu. leen di nuyu ñoom ñëpp ndax bari nañ ci Sénégal euh, rawatina fii nga xam ne moom moo di Ndakaaru euh, bawol bawol li ma koy faral di waxee foo leen fekk euh, door waar rek. Mm. ci la ci la ñu nekk donc ñuy nuyu suñu maman Aïda Mbodj la la la Lion du Bawol ak bawol bawol yi nga xam ne yëpp ñoom ñoo nekk foofu ca Bambey vraiment Bambey nekk dëkk bu am taarix. Mm-hmm. chemin de fer bi aussi amoon lu am solo lu mu fa doon joué ci wàllu mm-hmm. koom-koom mais aujourd'hui avec le déclin du chemin de fer mm-hmm. am na lu bëri lu ko nasaxal foofu en tout cas mu nekk dëkk bu nga xam ne dëkku cosaan la dëkku aada la dëkku diine la tamit mm-hmm. nekk dëkk bu am am am dayo euh, donc euh, ay euh, oui super Linguère Aïda Mbodj man man bokk na sax ci ñi ñi tax ma xam quand même Bambey mm-hmm. on a commencé ba mu fesee si donc quand il était avec Abdoulaye vraiment voilà elle a rendu célèbre Bombay ça quand même il faut le depuis 1956 la nekk commune de plein exercice donc commune bu mhm. yàgg la aussi quoi. Mhm. Mm-hmm. Bombay amuñu woykat bu siiw. kan si Bombay. Mm-hmm. man nag je suis pas très fort man Waly rek laa xam ak Youssou. Mm-hmm. ak Amady temps yii moom am naa Amady. peut-être que Waly la peut-être que am Waly bu dëkk Bambey. am na Waly Bambey <laughs> seen université Aline Diop aussi bokk na ci ak technicien yoo xam ne ci wàllu agriculture école bi fa uh-huh. nekkoon uh-huh. loolu si bokk na ci jëm lii jëmal dëkk boobu di Bambey GFM sax jox dayoo bu mag dëkk bi moo tax ñu wut un correspondant à Bambey donc euh, di ko nuyu bu baax a baax dàq baatale nag Babacar Diouf Babacar Diouf <laughs> <laughs> di ko remercier bu baax a baax Aminata Livin Meng suñu invité euh, donc teew na lii moo tax nee naa dëkk bi nañ ko dénk jigéen ñi tey la ñëw tey la toog tey la installé n'est-ce pas <laughs> teel a pare tey bu leen may dara nag. teel a pare na sax sax ñoom ma déjà ah, en que. ah maa ngi leen di nuyu maa ngi leen nuyu ba nuyu spécial <laughs> nuyu royal. merci euh, ñeneen ñi maa ngi leen di nuyu nuyu bu yem. <laughs> Euh, di nuyu ñu ñuy seetaan ñëpp j'espère que yéen a ngi ci jàmm. Ah, non non du discrimination on inverse on essaie de d'inverser les choses <laughs> d'accord ah, ça c'est de la violence ah ban tey ngeen xam ne la violence n'est pas que physique bizarrement quand ça se rapporte à eux les hommes savent toujours mécanisme violence mhm. donc Dieynaba maa ngi lay nuyu bu baax mhm. euh, c'est dommage nag que su ma ñëwee TFM rek c'est que y a vraiment des des des des cas graves qui se passent en fait donc loolu moo tax ça loolu moo tax je pense qu'il faut vraiment loo xamante ne ay ay ay émissions yu régulières la d'ailleurs gën naa la gis. Libidor Libidor. donc il faut vraiment ay émissions yu régulières pour parler des violences conjugales des violences sexistes et sexuelles au Sénégal. Mhm. ñu bañ a bàyyi ba kaa am rek. Mhm. Euh, ba ñu doon nekk dans l'urgence rek en tant que femme ñuy inviter euh, les spécialistes mais c'est déjà très. yeneen aussi qui sont des sujets choquants. comme mhm. su mel ni le de paternité. des sujets exactement euh, la réforme du code de la famille ah, on l'attend. <laughs> on la réforme avec merci beaucoup rek def salutation. waaw non dañ la wax nga nuyoo rek quoi. c'est que les femmes de ce pays sont dans l'urgence. c'est que ñun yéen am ngeen temps toog waxtaan ñun amuñu temps boobu. ak moom bokk nañu fi plateau 8 mars. mu 8 mars toog nañu fi ma ne moom bokk plateau. waaw waaw mais bu rek 8 mars elle a raison bu rek 8 mars. Ah, la ñu a wax fii la fekk ma fi yëkkati ma ni ma jógal. <laughs> <laughs> en tout cas merci beaucoup donc on va euh, donc parler yu bari euh, donc euh, ci ci kanam mais en attendant dinañuy xool benn document bi nga xamante ni document bu am solo la euh, jëmee ko nag ci di xew foofee kon ca ca Liban tout de lay doon. alors